ngi lay fay ñu ngi lay fay macha allah. tey nga déplacement bi du lenn lu dul nekk njabootu Tivaouane nekk njabootu Cheikh Seydou mu Moustapha Sy mu woote fii ñu war a ñëw bale course bi waajal gàmm gi nga xam ni woy juróom wa maam Cheikh Ahmed Tidiane moo ko daan def fii Serigne Cheikh bam daan nekk di def fii gàmm ñun daan nañ fi fanaan dix jours avant dix jours après gàmm di nekk di surveiller fii ak matériel yi fi indee gi demee noonu kon suñ demee ba tey xëy na jot gi mayeetu ko lu mel nii buñ ko wootee luñ doon def dinañ ko bàyyi ñëw def comme ñëpp bale comme ñëpp rawatina nag muy guddi Seydina Muhammad nga xam ni tey maanaam ñi dul jullit sax ñu dul jullit sax ñu ngi bàyyi xel guddi gàmmu Tiwaawan kon donc loolu tey suñ ñëwee gis mu mel nii ak peut-être xëy na année yi passé ni mu daan mel parce que boo xoolee bi Serigne Cheikh daan def kii buñ daan ñëw di bale daan nan bale jàppaat jour balewaat xëy na effectif bi moo manqué woon wala ñëpp daawuñu am jot ñëw mais léegi bu nee sept heures ñuy ubbi bu la fi edem yi fekkul doo fekk dara te loolu nag euh, njariñ loo gis muy avancé xamal ni noonu lay avancé Serigne Cheikh demoon na ba wax ni ah fii de xajatuñ fi léegi des na tuuti dootu ñu fi xaj mais noonu la amee léegi parce que léegi pratiquement kenn xajatul fii sëñ saa sax am na gàmm yu paas mi wax naan dinañ jéem a xool nu ñuy aménager ci biti def fa ay bâche pour nit ñi di fa mën a toog buñ gàmmoo ba pare war xëy ziar mais ku ne gis na jàpp place bi gars yi dañuy tëb miir nga gis ñuy daw ku ne loolu yow tey jii nga xam ni jamono bii ñu nekk moo gën a metti moo gën a jaxasoo nga xam ni jeune nga orienté ko jëmale ko ci yoonu yàlla c'est tout un problème Serigne Moustapha bu wootee balaa ni suba la ziar wala gàmmu kenn du fi xaj nit ñi daw di jàpp place loolu sant yàlla loolu dañuy jàpp ni ñun ñu ngi ci yoon wi waaw dañuy jàpp en tant qu'autorité politique hmm. euh, bees bi hmm, hmm. ak euh, njëkk am ci seen ci seen ci seen woowu ban message ngay laaj xam nga tey jii euh, ñun dañu bokk ci benn coalition ñu naan yeewi askan wi ñu àndoon nag euh, ñi nga xam ñoo nekk les tenants du pouvoir ba ñu accéder au au au pouvoir ñuy continuer ba léegi muy rafet euh, jàpp nañ ni loolu rek moo war a am mooy am taxawaay boo xam ni Sénégal euh, li nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñun jox réew mi yàlla def ñu gis ko ci ñoom assemblée nationale nam na mu demee ñu ngi ci groupe parlementaire yeewi askan wi bokk koog waa Pastef ñom Ahmed euh Ayda Mbodj ak euh, ñom Déthié Fall ak euh, Habib sidou du moins ba légui fi toll ni may waxe yow ni man président commission des lois la may premier vice président commission bi ñu ngi en commission. mbalé mi wax deug yalla xaw ma nu def man comme man naa yónnee sama délégation na yónnee sama délégation man continuer fi bu plénière ñu dem bu soobee yàlla parce que ak situation bi politique Sénégal nek mom ku ne xam na ni fi mu ne nii tiraillement la ñi ñi nek gauche ñu ngi xëc ñi nek droite ñu ngi xëc léegi nag comme le président moom am droit am les prérogatives ba nga xamante ni su eggee su assemblée amee deux ans su ko neexee mu dissoudre ko peut-être xëy na loolu moo tax ñi nekk ci gauche bi di di di di xëccu ñoom it parce que politique moo demee noonu. kii mën nañ est-ce que yaa ngi yaa ngi yaa ngi xaaraat euh, beneen mandat si kum si kaw bu ñu ko tasoon. waaw ñun moom xam nga ñun bi ñuy nekk député musuma xalaat sama àdduna ni man dinaa nekk député. est-ce que leer na. kon ñun ay xaar ay mandat gis nga ñun xam lu ñu lu ñu lu lan la ñuy ñaan yàlla mooy fii ak sunu mandat bii di jeex ñu bañ fee def lu ñuy xeebe leneen lay ñëw ëllëg nag yàlla moo ko xam mais ñun la nga xam ne ñun mooy suñu wareef bañ demee assemblée nationale li ñu tuwaan di xaare ñu ca man ñu ngi koy bay néew ma def nañ lépp de mais ñu ca man lépp def nañ ko. merci beaucoup léegi ñu ngi gis aussi euh, ces temps ci maire bi nga xamante ni moom mooy maire dëkk bi di Diop Sy Euh, ñu ngi gis ay attaque jëmale ci borom jakarta man yeeg mel alors loolu bu fekkoon da nga am message boo ko lan lay doon yan kàddu lay doon waaw message bi moo ko yónnee gis nga soo doonee maire Tivaouane rawatina Tivaouane parce que fii du Dakar du Dakar du Thiès du faneen tuawan. la dëkku daara la boo doonee maire Tivaouane nga woote ak taalibe ba ñu jox la réew mi ñu jox la da continuer di sax ca mais woro bàyyi ba ju jub gàmmu ngay def lo xamni ni na la ni soko defé riposte dina am parce que li def manam communication bu baxul bu wowe ay nit ni len fay len six mille ñu dem ba jub gamu. ñu def sen délibération conseil municipal voté ko ñu ñew ni len légui ya ngeen ci def yenen vingt mille Lalu leerul ci borom bop jakataay tay bo xey xey sa way daan dépensé fukki dem nga xey ñu la tey boo joxewul junni doo añ cepi di nga di nga di nga cëppi cëppi. mais nak lim def teggul ci yoon. néew ma tegul ci yoon parce que conseil municipal ñom ñoko def mais dama ni. ku fi doon maire da nga war a yërëm waa Tivaouane. parce que Tivaouane dëkku daara la loolu kenn duko dindi. Tivaouane fi yalla def rek ci barki ak limu yalla ko di continuer di naat mais Tivaouane dëkku na xamne daara la. effectivement yow Tivaouane na nga fay xam benn usine fii Tivaouane wala nga xam fi benn maanaam administration boo xam ni ay temps de jeunes ñu ciy liggéey amul fii dëkku daara la bay moo fi am ak jaay ak leneen ak leneen kon boo ñëwee bëgg a taxaw rythme dakaar nga bëgg koo imposer waa Tivaouane loolu du sotti coow lay bari man nag du ma cautionné kenn kuy yàq wala ngay toj encore une fois Jakarta maa ni bi ñuy def loolu jour boobu

Sénégal ci boppam ñoo warul nangu benn nit taxaw di wax ci suñu répondre. Cheikh Omar Diagne je pense. nañ ko kenn rafetlu ko kenn tu Omar Diagne na parce que gis nga suñu Sénégal bi ciow li bare ba ku Sénégal dina tak na tu gis nga ñaanu mag ñi motax affaire vote gis nga ñooñu nag fan tëju ba def loolu nit ku ne war nga leen a bàyyi xel nit ku ne war nga leen a bàyyi xel gis nga moom moom Cheikh Omar Diagne sax mag ñi ñoo gérer sécurité kon na wax ci mag ñi lu rafet rek loolu yomb na gis nga wax lu rafet ci mag ñi dafa yomb boo dee wax lu ñaaw nag di nga di nga di nga inventé di nga fen di nga wax loo warul wax mais bu fekkee yom seen i tracé fi ñu jaar rek nettali ko mais yomb na parce que chaque jour nga dégg oustaz yi taxaw Serigne Touba lii El Hadj Malick lii keneen ak keneen Maam Baye Niass loolu ñun ñëpp miin nañ ko wax loolu nag moo gën a jub ngay taxaw di wax safaan wa merci beaucoup moo tax ñun dañ koy wax mu mu ressaisir mhm. te sorteem yi muy def mhm. mu bàyyi ko parce que nga Sénégal nag mhm. gis nga am na loo xam ne artu nañ ko ku ne artu na ko bu continuer di ko def après mag ñi lañ koy bàyyeel te ñoom mën nañ koo lijjanti merci beaucoup merci Mikro...